asalaamaaleykum mbokk yi safoo di seetaan seen télévision Leral TV euh, ak Leral point net tey ñu ngi àndaat ak yéen ci seen émission Leral santé Leral santé nag buñ ko waxee xel yépp de daal di dem rek ci wérgu yaram tey nag ñu fas yéene waxtaanee rek lépp loo xamante ne dafay jëm ci wàllu gémmin waaye itam euh, wàllu bëñ tey nag ñu ñëw fii euh, sees si waa kër docteur ñu fas yéene waxtaan ak ñoom ci loo xamante ne dina leen jëriñ waaye itam dinañu jëriñ ñun ñëpp léegi léegi lay doon ci seen émission Leral santé. waa docteur tey ñu woon euh, rek euh, war a waxtaanee li nga xamante ne mooy jëm ci wàllu wér-gi-yaram waaye itam rawatina tey li nga xamante ne nii moo jëm ci wàllu gémmin wàllu bëñ laata rek ñuy xuus si waxtaan bi dañ lay bàyyi nga nuyoo ñi nga xamante ne nii ñoo lay seetaan waa téléspectateur u Leral TV ak Leral point net. merci beaucoup Mariama kontaan naa trop si invitation bi soo ma woowee nag ma ma wax si santé bucco-dentaire. dama siy kontaan parce que ci loolu laay yëngu te ñun ñi nekk ci ci milieu bi ñun ñoo mën a expliquer population bi ñu mën a ñu mën a gën a mën a fagaru ngir mucc ci feebar yooyu la yi nga xamante ne moo nekk ci ci gémmi wàllu gémmiñ alors euh, docteur tey ñu ñëwoon fii rek waxtaanee li nga xamante ne mooy euh, wàllu wér-gi-yaram euh, tey ñu ñëw sees si la ngir nga àndil ñu ay leeral ci lu jëm ci wàllu gémmin gémmin nag buñ ko waxee souvent dañuy dégg ñuy wax ay carie dentaire mooy lan. benn feebar bi nga xamante ne d'origine infectieuse la te muy mën a dal ci ci bëñ bu ne pour caridentaire mën a am nag. il faut nit ki am bëñ su amee bëñ il faut jàngoro benn bi nga xamante ne moom la ñuy wax bactérie mu teew en même temps bactérie boobule mu mën a fekkanteeg suukar suukar boobu noonu bu muy fekk ci biir bëñ yi loolu mooy indi carie dentaire bactéries yooyu suñu ñëwee ñu tegu ci kaw bëñ bi suñ ko brosul lu yàgg day commencé di bëtt bëtt bu ndaw bëtt bi di avancé di avancé ba mu dugg ci biir li ñuy woowee neeru bëñ bi mooy lii nii léegi nag su demee ba mu inflammé loolu la ñuy woowee carie dentaire. Euh, à li nga xamante ne nii moom mooy carie dentaire ban feebar la gémmiñ mën a am. gémmiñ soo ko gisee gémmiñ dafa am li nga xamante ne loolu la ñuy woowee bëñ muy odonte ak li nga xamante ne moom mooy wër bëñ. loolu la ñuy woowee parodonte léegi parodonte boobu bëñ mooy liy feeñ signe bi moom la ñuy woowee gencive donc feebaru bëñ mën na jóge ci signe bi comme mën na jóge ci bëñ bi en tant que tel est-ce mm-hmm. li nga xamante ne nii moom mooy carie bu xasee ba dal euh, nit ki ci bëñam. Mm-hmm. bëñ boobu dañ koy dindi dindi ko rek moom mooy saafara bi walla mën nañ ko faj. bëñ feebar yi mu mën a am comme ni ma ko waxee sànq bëri na mën na nekk ci bëñ bi en tant que tel wala mu nekk ci siiñ bi wala mu nekk ci yax bi yaxu bëñ bi léegi nag bëñ bi su xasee ba mu bënn en fonction de degré attente wu bëñ bi mën nañ ko traité am li nga xamante ne nettoyé ak plombé doy na si bu nekkee nag feebar bi dem na ba mu jàpp neeru bëñ bi li ñuy woowee la pulpe bu demee ba mu inflammé boobu tamit dañ ciy def traitement bi nga xamante ne moom la ñuy woowee traitement endodontique traitement endodontique boobu moom la ñuy njëkk def ñu doog a plombé waat bëñ bi léeg nag bu nekkee nit ki yéex naa ñëw ba bëñ bi damm ba mu jeex takk takk takk ba mu dugg ci biir siiñ bi yooyu moom saafaraam dindi rek lay ndaw donc dindi tamit benn saafara la ci problème mu bëñ. à part euh, waa dindi bi noonu saafara la li nga xamante ne moom mooy facteur de risque est-ce que feebaru gémmin mën na dem ba àgg stade boo xamante ne ni comme ba àndi ay cancer walla ay maladies yoo xamante ne ni moom moo gën a grave. bëñ bi su nekkee fajuñu ko ñu toog bàyyee ko noonu sàggan mu àndante ak problème mu gencive mooy c'est-à-dire signe parodontite boobu bu nekkee net nit ki brossuwul fagaruwul am na ay facteur de risque yeneen maladie yi nga xamante ne mën na ko indi parce que ci carie dentaire su nekkee fajuñu ko wala dindiwuñu bëñ bi traité wuñ ko mën na dem ba nga xamante ne mu indi neewi neewi neewi bi nga xamante ne ci suufu signe bi nga koy gis mu jóge ci kist mu feeñ mu nekkaat tàpp mooy abcès dentaire abcès dentaire boobu noonu suñ ko traité wul mën na dem ba nga xamante ne mu néewi ñu woowee ko cellulite dentaire mooy néewi néewi yu mag yooyu noonu yi nga xamante ne nit ki sans mu ŋaan gémmiñ bi sax di nga gis ne que fii nii dafa néewi néewi néewi boobu noonu mën na mën na dem suñ ko traité wul mu dem ba mu dëgër su dëgëree nag mën na dem ba nga xamante ne nga am perte de substance bi nga xamante ne mu lex bi ubbeeku carrément ba mu infecté bu ñu commencé di gis diggante gémmiñ bi ak lex bi loolu la ñuy woowee noma noma mooy li nga xamante ne dem na ba infection bi ëpp na nit ki doole ba nga xamante ne mu dem génn ci paxu lex bi mën na nekk lex bi côté bii wala ci kaw d'habitude moo ngi localisé wu ci bëñ bi nga xamante ne moo indi feebar bi fi mu fi mu tàmbalee. Ah, souvent ñi nga xamante nii loolu dal na leen dama koy gis parfois ñi nga xamante nii dem nañ ba bëñ bi. ba seen gémmiñ néewi parce que dañoo am problème bu bañ waaye parfois bu ñu demee hôpital dañ leen di renvoyer ne dañuy xaar ba kii bi rees ñu soog ko laal lan moo waral loolu. bëñ su demee ba nga xamante ne infection baa ngi foofu léeg-léeg nga soxla bu bu nekkee ñëw nañ ñu dindi bëñ bi mën na indi benn infection. par exemple ndëtt bi ak ni muy génnee noonu il faut nga jël antibiotique ba pare ba mu mot 48 heures jàpp 72 heures ba nga xamante ne néewi néewi bi wàññeeku charge bactérienne bi mu wàññeeku ñu doog a mën a dindi bëñ dafa mel ni euh, xale moo gën a ëpp ay risques ci am ay feebaru bëñ. xale yi du xale yi rek ñooy am ñoo gën a am risque feebaru bëñ c'est parce que xale yi ñoom. d'habitude balaa ñoo gën a mën a jàmbat bëñ day fekk bëñ bi dem na ba mu avancé te physiologiquement parlant xale infection bi su ñëwee ci moom day gaaw mu jóge ci stade bëñ buy metti mu jëm ci dent bu dundatul c'est-à-dire nécrose xale carie bi bu duggee xam nga ñoom seen structure bëñ bi dëgërul comme bu mag de ce fait suñu bënnee su bënnee day gaaw évoluer ba mu dem ba ci neeru bëñ bi mu rey ko infection bi dem mu évoluer mu neewi léegi nag xale moo tax xale gémmiñ bi pour mu bëñ bi neewi lu yomb lay doon lex bi mu neewi léegi nag li nga wax ci noma xale du moom kese mooy am noma d'habitude sax mag yi ay adolescent yooyu boo demee ci yenn zone yu gën a reculé ci Sénégal ay booru dans le sud yooyu ngay gën a taseeg ñi nga xamante ne ñooy am noma loolu nag mës naa ko jànkonteel ñaari yoon ñi nga xamante ne dañoo dem ba ñu am fistule mais ci Dakar fii nii bëriwul ñi nga xamante ne ñoo ngi dem ci loolu parce que am nañ accès ci dentiste wute naag ay dëkk yi nekk ci région yi nga xamante ne mën nañ toog benn dentiste moo fay nekk ci région bi ñëpp léegi nag ñoom pour ñu pour ñu dem gisi ji dentiste lu jafe la dañuy nekk noonu di mocc di def suñu faj wolof yi ba nga xamante ne mu dem ba mu gën a jéggi dayoo léegi nag. bëñ bi su bënnee te kenn defu ci dara mooy dem muy évoluer noma nag mooy on va dire l'étape presque ultime infection bi bucco-dentaire si euh, adulte yi parfois tamit nga dégg ñuy wax euh, li nga xamante ne mooy traumatisme buccal mhm. euh, lan mooy waral ñuy wax loolu traumatisme buccal waaw damay dégg parfois ñu koy wax soit nit ki parfois mu def choc wala dara am gémminam wala dara mën nga dégg médecin yi di wax dafa am traumatisme si si si kii bi wala dara. léegi souvent li ñuy woowee traumatisme mooy lépp li nga xamante ne mu ngi nekk choc lenn lu dëgër nit ki daanu wala mu def accident accident voie euh, routière yi nag souvent. day day day day am impact ci gémmiñ bi léeg nga am fracture mandibule bi mooy mâchoire nekk bi nekk ci suuf léeg nga am facture ñaari yëpp yooyu nag d'habitude ci stomatologiste yi ñoom ñooy ñoom ñooy euh, prendre en charge euh, problème fracture yooyu ak euh, hôpital Issa Pouye bi nekk Grand Yoff ak ñoom je salue au passage ñoom professeur Tamba ak ñoom ñoom seen ñoom ñoo bëri def li ñuy woowee blocage ñooñu suñu amee ay accident ak yooyu dañuy def blocage mais am na tamit li nga xamante ne yeggul ci traumatisme routier bi ci trau ci traumatisme routier yi léegi nag après euh, am na ay yi nga xamante ne ay traumatisme yi nga xamante ne nit ki xale yi dañuy foo wala ñuy jouer nit soxleen wala ñuy xeex ak yooyu loolu mën na dem ci traumatisme bëñ bi kese léeg-léeg ngay gis nit muy dox fekk dafa am benn incisive bi nga xamante ne dafa changer couleur yooyu yëpp ay xeetu traumatisme la ci bëñ léegi nag nit ki bu defee choc bëñ bi mën na metti mën na bañ a metti mu bañ a dem ci dentiste ci saa si léegi nag loolu neer bi nekk ci biir bëñ bi mooy dee mooy gangrène mooy nécrosé léegi nag nécrose boobu suñ ko suñ ko traité wul. bëñ bi day dem di changer couleur parce que bëñ bi dundatul loolu ngay faral di gis ay nit yi nga xamante ne bëñ bi dañuy naan bëñ bi dafa toog ba si yàgg rek mu am mu orange wala mu noir wala mu marron te man xaw ma lu ko waral mais léeg-léeg suñ ko traité wul mën na toog ay 10 ans 20 ans mu ñëw consultation ne man de bëñ bii day toog di am ay pat rek docteur wala mu toog ba si yàgg mu neewi mu nekk cellulite boobu noonu bi ma la doon wax sànq. Euh, li nga xam mooy amygdale parfois am na ay euh, bël yu weex yuy génn ci sa biir gémmiñ loolu ban rapport la am ak euh, li nga xamante ne mooy santé buccale xam nga gémmiñ structure yi nekk foofu yépp tissu mu yeeg yooyu yépp yépp ci pratiquement même entité la gémmiñ bëñ bu am kari kari bu bari ci gémmiñ mën na waral infection amygdale yi di gën a di gën a def gaaw a développé wu amygdale mooy bul yooyu noonu yi nga xamante ne moo nekk ci ginnaaw ci gorge bi moo ngi nekk gauche ak droite yooyu léeg-léeg ci am na ci ay nit yi nga xamante ne dafay rëy dafay rëy ba jéggi dayo nga xamante ne nit ki su lekkee lu mu brosu brosu day am ay ñam ak yenn infection yi nga xamante ne mooy des ci ginnaaw lu mu gallaxndiku gallaxndiku tamit du mën a set léegi nag yooyu day am ay ay lii yu ay résidu yi nga xamante ne yu weex mu dem ba mu infecté mu tudd amygdalite léegi nag yooyu daal am na nu muy toll loolu il faut ñu def ko opération opération yooyu nag l'habitude ORL yi ñoom ñoo koy def ci seeni locaux ñoom ñooy lii xool def euh, examen yi war yi nga xamante ne ñu mën a def exéresu amygdale yi c'est-à-dire daggu ko bàyyi cicatrisation yooyu parce que léeg-léeg mën na indi xetu gémmiñ mën na indi tamit chaque fois ngay am ay angine répétitif te angine répétitif mën na am ay bactéries yi nga xamante ne day dem mu agir ci ay yeneen yeneen organe ci ci yaram bi mu nekk ci xol beeg yooyu. parfois am na ñoo xamante ne nii dañuy brosse léegi mais dafay mel ni brosse wuñ wala tout le temps foo leen fekk dañuy brosse et pourtant dañuy amee mauvaise haleine est-ce que amygdale moom mooy waral loolu wala li nga xamante ne mooy cardiodonta. Euh, mauvaise haleine wala halitose loolu ay. Euh, am na possibilité yu bëri am na yi nga xamante ne ay halitose yi nga xamante ne ci bëñ la jóge ci gémmiñ ay brosse yi nga xamante ne ay carie carie yu bëri ci gémmiñ mën na indi loolu mën na indi xetu gémmiñ am ay plaque bactérienne c'est-à-dire ngay lekk lu bëri te doo brosu moo ngi nii ñu koy matérialiser fii plaque bactérienne mooy nit ki suy lekk te brossage bi yeggul ba fii nii ah lii nii mooy plaque mooy yu jaune yooyu noonu marron yi tegu ci diggante bëñ bi ak gencive bi léegi nag yooyu noonu suñ ko dul nettoyer wala brossage bi du yegg ba foofu léeg-léeg muy accumulé wu dina dem ba mu créer halitose su loolu weesoo am na tamit yeneen euh, mën na jóge ci daal yooyu noonu yi ma la doon wax d'origine ORL ah sinusite yu bëri yi nga xamante ne non traité day indi tamit xeetu gémmiñ euh, problème gastrique tamit da koy indi am na tamit appareil bi nga xamante ne ñu ngi koy tuddee halitomètre bi nga xamante ne moom dinañ mën a def distinction entre origine origine boobu boobule mais d'habitude boo nit bu amee halitose première personne ba euh, personnel euh, soignant bi nga xamante ne moom la war a seeti chirurgien dentiste bi la ñu xool ndax gémmiñ bi amul ay plaque yooyu noonu bu nekkee am na ko ñu defal ko li ñuy woowee détartrage léeg mu am ay ay poche ñu ñu ñu defal ko curetage nettoyé ko bu baax def ko yenn prescription bain de bouche yi nga xamante ne à ma koy utiliser din ci gis tan nit ki nga xamante ne moom mooy euh, comme adulte la nan la war a toppatoowee gémminam bu nekkee xale xale moom li may wax rek dañ ko war a teel a tàmmal li ci brosse broso même su nekkee amul bëñ war nga su amee ay quelques mois nga jël compresse nga def ci ndox wala léeg nga jël compresse nga def ci tuuti xorom nga fomp gémmiñ bi ba moom mu xam ne ne que lii nii sama gémmiñ ñu tàmm di ko laalal bu demee ba am ay 4 mois trois mois am na ay brosse yi nga xamante ne yu nooy yi nga xamante ne c'est plus ay anneaux de dentition yi nga xamante ne léeg sooy sooy sooy sax ay bëñ signe bi dafay dafay xasam signe boobu noonu di xasan xale bi dina nekk di ko foowee di di mu koy nekkaale benn massage gencive bi pour moom muy tàmm di utiliser brosse bu amee ay un an deux ans fekk bëñ yi génn na mën nañ de temps en temps am na ay brosse à yu ndaw yi nga xamante ne da koy utiliser yow tamit léeg-léeg nga koy jàppale ni muy ni muy ni nga xamante ne xale bi dina dina miin loolu ba pare fii seetlu naa ne ñu bëri balaa ñoo indi xale ci euh, ci cabinet dentaire day fekk ba gémmiñ bi bëri na ay kari léegi nag xale bi moom du miin ñëw ci dentiste alors que xale bi da nga ko war a indi visite de routine visite systématique mu ñëw ñu consulter ko xool ko mu mettre en confiance moom ak dentiste bi nga xamante ne moom mii chaque six mois dina mën a respecter ñëw rendez-vous consultation ñu xool gémmiñ bi ndax amul benn problème benn jàngoro léegi nag nit ki bu demee ba mu nekk mag. li nga xamante ne moo ko mën a prévenir ci ci yenn problème bi ko dentaire yi loolu première de chose mooy brossage brossage matin et soir avant nag ñoo ngi doon naan brossage matin midi soir wante léegi midi bi li ci gën a bëri dañ koy tëbal parce que déjà am na ay études yu wane ne brossé wu trois fois par jour mën na créer muy abîmer émail émail boobu noonu mooy li nga xamante ne mooy protéger bëñ bi boo brossé deux fois par deux fois par jour te brossage bi il faut mu nekk brossage bu efficace brossage bu efficace mooy brossage bi nga xamante ne day jóge ci gencive bi mooy c'est-à-dire que lu xonk li ah, mu jóge ci gencive bi jëm ci bëñ yi brossage bi nii la war a nekk brossage bi dafa war a nekk brossage bu vertical bi nga xamante ne dina mën a nettoyer faasu bëñ yépp bëñ nag mu ngi am juróomi faas faas bi nga xamante ne moom ngay gis nii boobu mooy faas vestibulaire face bii nii mooy fas linguale palatin wala fas linguale bu nekkee ci suuf face bii nii mooy face occlusale bi nga xamante ne mooy ñam yi foofu noonu lañ ñuy dajantee suñu suñu yéey mooy face boobu noonu yi nga xamante ne mooy broyer aliments yi ah. nga am fas proximale mooy face yii nii mooy yi nga xamante ne ñaari bëñ yi fi ñuy jàkkaar fi ñuy fi ñuy fi ñuy dendee loolu yooyu nag brossage bi nga xamante ne brosse bi nga xamante ne courbeegul mooy mën a tax nga mën a brosse ci diggante ñaari bëñ yi poilu brosse bi il faut mu mën a dugg ci diggante bëñ yi nga xamante ne brossage bi mën a efficace mu mën a dindi yenn ferñeent yeeg euh, résidus alimentaire yi nga xamante ne lekk bi joxe na ko loolu mooy brossage bu efficace léegi nag am na tamit yenn yi ngiy woowee adjuvant dent adjuvant au brossage mooy li nga xamante ne dañ koy yokk ci brossage bi am na yenn endroit yu xaw a yaatu tuuti wala muy mën a di dugal ay ñam. mën nañ utiliser li ñuy woowee brossette interdentaire wala fir dentaire yooyu yëpp ci adjuvant au brossage yi nga xamante ne dañ koy dolli ci brossage bi léeg de temps en temps war nañ mën a utiliser li ñuy woowee bain bouche. nga xamante ne soo broso ba pare nga koy gàllaxndikoo du nag li nga xamante ne dañ koy utiliser ci longue durée dañ koy utiliser sa benn une semaine dix jours. ay xaaraat encore yi ay trois mois nga xamante ne chaque 6 mois nga mën a ñëw defiji ji détartrage nga xamante ne mooy système euh, nettoyage bi nga xamante ne c'est c'est avec la machine mooy suñu fauteuil dentaire yii nii ñu def détartrage dindi ñam yi nga xamante ne brosse bu inefficace bi nga xamante ne mënul jot yenn zones yi moo tax chaque 6 mois ñu naan na nit ki dem seeti ji dentiste pour nga xamante ne mu mën a prévenir ba pare dina tax. consultation boobu noonu dina mën a tax ñu ñu détecter précocement carie parce que carie moom ci évolution avec le temps day ñëw mu nekk pax-pax bu ndaw suñ ko plombé wul mu dem di avancé li may wax patient yu bëri rek mooy bëñ moom tànk kanam rek la am amul tànk ginnaaw bëñ toog ba si yàgg mu ne la wéral naa sama bopp jeex na amul fen bëñ da ngay ñëw nga commencé mu def pax-pax bu ndaw nga faj ko soo ko deful mu évoluer muy dem nag di dem ba mu créer noma boobu noonu li ma la doon expliquer sànq. ñi nga xamante ne dañuy préférer utiliser socc cure-dent que au détriment de kii brosse à dents. lan lan nga leen di wax wala lan ngay wax ci loolu. ah socc moom baax na parce que socc euh, déjà suñu tradition la ah euh, socc nag man duma <laughs> duma ko bëgg duma ko bëgg. naan comme comme ñeneen ñi dinaan noonu socc bàyyi leen socc bi dem ci brossage bi non du ma ko wax. mën nañ boole ñaar yëpp. sax de wala mën mën nañ boole ñaar yëpp léegi nag juste li ma bëgg a marqué mooy socc soo koy utiliser fekk utilisation bi baaxul xam nga léeg-léeg c'est culturel. nit ñi dañuy toog yendoo téye bro socc bi di ko socc di socc léegi nag loolu mën na créer li ngay woowee mu mu mu mu dindi émail bi mu teggi émail bi te émail mooy li nga xamante ne moom mooy protéger bëñ bi moom mooy li nga xamante ne moom ngay njëkk gis ci bëñ mooy couche boobu noonu bu weex transparent boobu bi nga xamante ne mooy nekk ci kaw bëñ soo koy soccu nag effet mécanique boobu noonu ngay soccu di soccu mën na dem ba nga xamante ne dangay yàq émail boobu léegi nag euh, bactéries yi suñu ñëwee dañuy gën a yomb mën a dugg ci bëñ yi donc soccu soo koy utiliser déjà waroo di agresser gencive bi am na socc bi ni nga koy defee ci gencive bi noonu da gën a indil say bopp ay ay ay problème léegi nag su su su loolu weesoo mën nga nag di utiliser ay socc ngay ngay brosse ngay ngay ngay socc yenn zone yi nga xamante ne yow ak brosse bi yow mënoo mënoo fa atteindre léeg-léeg socc yu ndaw yi moom c'est c'est c'est vraiment efficace. waaw làmmiñ bi tamit dañu war di ko di ko brosse. boo brossoo ba pare ni ma la doon expliquer sànq danga war a brosse làmmiñ bi. Hmm? nga brosse làmmiñ bi parce que léeg làmmiñ yi dafa am li nga xamante ne la ñuy woowee papilles papilles yooyu noonu dafa dafa dafa nekk lu ndaw li nga xamante ne dafa mel ni velours velours noonu soo làmbee velours xam nga dangay gis ay ay ay ay lii yu ndaw yooyu mën na nekk benn réservoir bi nga xamante ne moom mooy tegee bactéries yi bactéries yi ni mu koy téyee noonu mën na la indil sax mauvaise haleine yooyu noonu yi nga doon wax.